ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Mamor Anta Sali Mbàkke xalif Seex Masamba sëriñ Seex Mbàkke xalif sëriñ Mahmoudan Jobe Masamba sëriñ Mahmoudan Bousso xalifa sëriñ Sa Bousso maam sëriñ Bousso xalifa sëriñ Seex Bousso jabootug sëriñ Sa Bousso sëriñ Fàllu Bousso président daairatu ashabul jannati waa kër soxna Maam Jaara Bousso ak jawriñam sëriñ Basiru Bousso ci njiitul soxna Maymuna Bousso présidente fédération daairatu ashabul janna waa kër soxna Maam Jaara Bousso ca Touba Loyeen soxna Sooda Jaw vice présidente sëriñ Fàllu Bousso président daaira ashabul jannati sëriñ Dam Ndaw ndaw trésor trésorier général Cheikh May Ndaw jëwriñu liggey bi mam Cheikh Bousso jëwriñu culture ak mbollem membre de iratu ashabul jannati yu aju ci soxna Maymouna Bousso ño am mbégte di len yëgal bis bu ñu fas yéenee ji seenub liggey ñu jàpp ko dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru janvier diko ko yëgal mbooleem jëwriñ yi bëgg jëwriñ ju ci nek nak soñu mbooloo ma mu jiite góor ak jigen mak ak ndaw ñu téla daje dajale liggey bi jébbale ko waye ñu ngi len di xamal ne gannaaw bu ñu jébbalee liggéey bi ba nopi ngir waajal maglu proxane ñaari fan ci wéru février 2023 ñu ngi wote ab jaayante ci Touba Loye jigen alarba ñaar fukki fan ak juroom ci wéru janvier 2023 ñing koy yëgal mbolem member yu góor ak jigen mak ak ndaw diko yëgal nak soxna mam isa mbàkke ak mbolem wa ahlu café waa kere ndaw ci njitul serigne yuusu ndaw wa touba sourang ci njitul soxna soda ndaw ak soxna ndaw ak mboolem membre yi ya. sëriñ mahmoudan sall wa touba soxna fatilo wa touba loyen serigne ibrahima kan wilaya wa touba daral julit yi ak talibé yi xarit yi soppé yi yi wala ak am di jàmm yi noo ngi ñaan ku tew ci bisba lakk ci ngërëmul yalla ak pajuk aajo barke xaadimu rasul barke mam soxna jaara soxna jaara dañ koy ñaanal di sant tey màggal xel na yàlla dolli ko leer ak ngërëm ak njëggal soxna jaara yitteem jàkk pas-pasam ba moo raw gar fonk jëf ndigal sëriñ ak sunna moo ko may ab cër soxna jaara pëstéefam baag yitteem a tax day yiw kër ci topp yàlla ak yónneen ba làq cër buñ naw soxna jaara mamor may ab sangam da koo déggal mooy borom ngërëm ak ndam ak jaloore ngir sellal soxna jaara mooy géejug yiw ga sans borom tànnal gaa yi soo bu doon rootaan ñëpp xëy na leen mandal la qualité la différence